Euh, le professeur euh, euh, Ndiak Fall euh, est en ligne Ndiak Fall euh, est un professeur de droit pénal il est à la à la retraite il est chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar professeur Ndiak Fall bonsoir. Bonsoir madame. alors professeur euh, Ndiak Fall xam naa ne comme sénégalais yëpp yaa ngi suivre euh, euh, les bouleversements de l'actualité ñii di wax report de l'élection présidentielle ñii naan report mënul nekk ci sa ci sa gis-gis lan moo mën a justifier wala lan la ñu mën a justifier un report de l'élection ci contexte bi ñu toll fii ci processus électoral bi Bien, euh, Madame, le report des élections pourrait être possible suivant les dispositions de l'article 29. Vous m'entendez? Oui, en wolof, professeur. waaw soxna si. pour maanaam toxal élection yi am na fu constitution bi saytoo maanaam ci jamono jii ñu toll évidemment du loo xam ne kenn ñaan na ko yàlla mooy bu benn ci candidat yi faatu woon loolu article vingt neuf bu constitution sénégalaise moo ko prévoir loolu moom dana tax ñu randal élection aha waaw loolu daal laa gis ni mën na tax ñu randal ay élection donc ci suñu constitution article boobu kese la ñu mën a sukkandiku pour randal élection maanaam mu am ku faatu ci candidat yi. voilà tout à fait. donc à part loolu euh, est-ce que jàpp nga ne li ñu nekk di invoquer nii euh, l'invalidation de la euh, candidature de de de Karim Wade cette question de binationalité nationalité y a une autre candidate épinglée pour cause de binationalité muy Rose Wardini elle est actuellement en audition à la division des investigations criminelles est-ce que yooyu ñuy wax. ak euh, tuuma yi ñuy teg ci conseil constitutionnel est-ce que président mun na ci sukkandiku euh, pour reporter élection yi. kooku day ci sama gis-gis bu gàtt dana ma jaaxal ndax fii mu ne euh, xam nga maanaam Karim Wade dañu ko écarté nee nañu ñaari nationalité la am bon dañu defoon réclamation ba nga xam ni conseil constitutionnel jàpp na ni Karim Wade warul bokk. léegi dogal bi nga xam ni conseil constitutionnel euh, jël na ko day dogal boo xam ni nit ki ànd ci wala bañ ci ànd yëpp dañ ko war a jëfee maanaam conseil constitutionnel bu xasee ba jël dogalam nga nangu ko ak nga bañ ko yëpp daf dañ ko war a jëfe kon ñooñu ñuy tuumaal ni ñu ngi ci même cas que Karim Wade comme dénoncé wuñ leen woon ca waxtu wa dañuy des doon candidat léegi euh, euh, dañoo ne euh, président de la République mën na utiliser l'arme de l'article 52 de la constitution bi koy conférer ay pouvoir exceptionnel ñu ne leen nan lañ koy moom da koy utiliser mu am ñeenti exemple yoo xam ne jox nañu ko benn bi ñu ne crise entre les institutions les artisans du report ba tey ñu ne on peut invoquer crise entre les euh, avec cette commission d'enquête parlementaire et les suspicions qui, qui, qui, qui euh, sur des membres du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en l'état actuel, on a la configuration euh, bi war a tax ñu ne y a une crise des ba président de la war a mën a utiliser article 52 de la constitution boo mooy pouvoir exceptionnel c'est-à-dire day am jamono joo xam ni réew mi tëradi na tëradi goo xam ni euh, dañuy jox euh, président de la république doole joo xam ni moo ëpp jamu amoon loolu nag li koy indi mooy bu ñu nekkoon ci guerre wala réew mi jaxasoo te loolu ci sama gis-gis amul maanaam ay dogal euh, ëttu attekaay mën na ko jël ñuy laam-laamee dogal bi kooku yàgg na fi Euh, yàgg na fi lool mais loolu rek doonul loo xam ni mën nañ ci jëfandiku pour ne article cinquante war nañ ko appliquer. alors euh, assemblée nationale dañoo teg une commission d'enquête nee nañu pour euh, enquêter sur les suspicions euh, qui pèsent sur les membres du conseil euh, constitutionnel euh, lu ni ci sa expérience. Euh, est-ce que mas na fee mas na fee am loolu mooy benn question bi beneen bi commission d'enquête boobu euh, fan la ay limitam yem maanaam loolu nga may laaj benn bi commission d'enquête bu jëm ci maanaam euh, am xel ñaar ci ëttu attekaay bi ñuy wax conseil constitutionnel maa ngi koy door a dégg tey musuma yëg mu am ci réew mi muy benn ñaareel bi it assemblée nationale am na sañ-sañ su fekkee ne daal am na loo xam ni jaaxal na député yi loo xam ni lëmbe na réew mi walla bokk yenn député yi sax ni nangam ak nàngam xew na bëgg nañ ñu saytu ko commission d'enquête moom mën na am maanaam loi may na ko waa assemblée nationale ñoom nag bu ñu saytoo loolu ñu doon euh, euh, euh, jéem a leeral suñu paree dañuy def ay recommandation recommandation maanaam daal bu ñu sañoon nangam am bu ñu sañoon nangam am yem loolu rek lañ mën a def mais euh, mënuñu entendre Euh, les les les juges du conseil constitutionnel te amul benn conséquence bu mën a découler ci commission d'enquête boobu bu mën a laal les juges constitutionnels les les juges du conseil constitutionnel. déedéet fii mu ne euh, conseil constitutionnel dañu am sañ-sañ. war ko doxal alors assemblée yëpp na sañ-sañ séparation des pouvoirs daal moo dox foofu maanaam ku ci ne am nga sa cër da ko war doxal keneen warul am cëram di ni foog nga doxalee ni ma bëggee. alors euh, depuis ce matin ñu ngi naan euh, président dina mën na dissoudre conseil constitutionnel bi ce qui n'est pas permis euh, par la constitution ils sont euh, nommés pour pour pour six mois six ans. Euh, seen mandat kenn mënu ko révoquer tey président euh, yan sañ-sañ yan levier la am euh, concernant le conseil constitutionnel. ah wax dëgg yàlla ci sama xam-xam bu gàtt suma benn levier boo xam président am na ko pour dissoudre conseil constitutionnel ndax ñi nga xam ni ñooy membre conseil constitutionnel maanaam ñoom la ñu fal ci conseil constitutionnel dafa am diir boo xam ni moom la leen yoon may. diir boobu fekk jeexul kenn mënu leen fee jëlee euh, lu dul ci seen coobare bopp maanaam démission te bu ñu démissionné président daf leen war a remplacer euh, ku ci génn adduna it président daf lay remplacer gis nga ci misaal am na jamono président Kéba Mbaye démissionné am na jamono it euh, kii la maanaam Babacar Sèye ñu boom ko terewul conseil constitutionnel continue liggéeyam. mais euh, dëbb suba président de la République dina wax ak euh, sénégalais yi bu fekkee ne mënul dissoudre conseil constitutionnel bu fekkee ne mënul recourir aux articles euh, à à l' article cinquante deux PDS dugal nañu proposition de loi pour un report des élections lan moo ci mën a tukkee. kooku nag dana jafe ma tontu ci puisque xaw ma lu président di wax kon moomuma tëb tëb di jéem gisaane non pas li président di di di wax c'est-à-dire ci situation bi ñu tollu tembe nii euh, mhm. euh, bu président fan la président mën a taxaw lan la mën a invoquer euh, ba mën a utiliser ay pouvoir yu ko constitution bi may pour dissoudre pour pour reporter élection bi kooku kay tontu naa ci maanaam fii mu ne ci sama gis-gis li mënoon tax ñuy reporter élection euh, mooy benn candidat faatu ci te loolu kenn ñaanu ko yàlla léegi li am solo moo di dañu war dem élection fixé nañ date bi ba pare nañ ñaan yàlla def jàmm ak sutura teranga ñu yegg ca ak jàmm ñu war a fal fal euh, falu. est constitution bi prévoir na euh, une situation où. Euh, arrivé au terme du du du mandat du du, du président de la République bu fekkoon dañoo reporté euh, est-ce que constitution bi aménagé na des voies et moyens euh, pour organiser le fonctionnement de l'État. maanaam man ci li ma xam bu fekkee ni euh, yegsi nañ ci waxtu wa nga xam ni président war na jébbal la ngay kooku moom daf ko war a def puisque maanaam dañu war a voter. bu àppam jotee mu dem ki koy wara wutu wuutu ko léegi nag euh, loolu it kenn ñaanu ko yàlla su fekkoon ni génn na àdduna moom waxtu yi dana indi situation boo xam ne xëy na mën nañ ni président assemblée koy remplacer lu toll ci ñaari weer mbaa ñett ñu def ay élection alors euh, professeur euh, euh, lan mooy lan lan la report élection mën a indil Sénégal euh, ci fi ñu toll tombe nii fii mu ne daal euh, reporter élection mooy dugg ci guddi goo xam ni bët setagul maanaam période li tubaab di wax période d'incertitude boo léegi président bi fi ne bu àppam jotee leneen lu fi desee dootul doon président boo xam ni légitime na maanaam daf fi nekk xëy na doolee ko fi téye waaye du caaginu maanaam charte réew mee ko fi téye merci beaucoup euh, professeur euh, Ndiaw Fall euh, Ndiak Fall euh, may lay remercier ma yaak may fàttali ne professeur Ndiak Fall il est chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar il est spécialiste de de du droit pénal alors juste une dernière question professeur lan la code pénal prévoir pour pour candidat à l'élection présidentielle bu def parjure maanaam Euh, ku def déclaration sur l'honneur nga ne euh, da ngay attester de ta bonne foi concernant toutes les pièces euh, fournies et que plus tard dans le process on se rend compte waxoo dëgg kooku day fii mu ne évidemment soo ma teeloon laaj danaa la mën wax article beeg yu mel noonu mais loolu maanaam faux témoignage la noonu laa ko mën tudde mm-hmm. te nañ ko ci daan mm-hmm. mën nañ ko ci daan merci beaucoup professeur euh, njak Fall euh, enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar euh, spécialiste en droit pénal merci et puis ñu retrouver